قلت mbokki Sénégal salaamaaleykum euh, yéen ñi nekk ci presse bi au niveau national comme international ñu ngi leen di nuyu di leen sant di tàmbali fàttali ne suñu woote tey bii li ko waral mooy ñun candidat yi nga xam ne waroon nañu dem tàmbali tey ci guddi suñu campagne électorale bi ñu dégloo la président Macky Sall dañoo décidé dañuy def benn front un front de l'opposition pour wax benn kàddu wax benn say ne lii nga xam ne wax na ko ñun mënuñu koo dégg te mënuñu koo nangu ndaxte nag conseil constitutionnel dafa am lu mu tëral ne jaar leen ci yoon bii ak bii ak bii boo leen bëggee nekk candidat ñu nangu ko wóolu ko lim ñu teg ñu jaar ci yoon woowu ba conseil constitutionnel pare ne ñu yéen yéenay candidats yi war a dem élection présidentielle Macky Sall ne nous a pas désignés comme candidats à cette élection présidentielle il ne peut pas aujourd'hui munta taxaw décider nekk ñun du ñu dem ci élection yi tey dañu am rendez-vous avec le peuple dañu am rendez-vous avec les Sénégalais tey à partir de minuit maa ngi woo ñëpp ñu nekk ci le mouvement ARC alternative pour la relève citoyenne di woo suñuy militants suñuy sympathisants di woo ñi nekk ci coalition de la relève ak Anta Babacar ñu jàpp ne campagne présidentielle dina am te tey lay tàmbali ci minuit ñi ngi xaar mu génne décret nous allons attaquer ce décret parce que teguñu fi bi ñuy jukk di investiru ne dañu bëgg a taxaw liggéeyal suñu réew tàgg tàgguwuñu ko laajuñu ko avion dañ see dugg ndax suñu devoir la suñu responsabilité la te du moom moo ñu tax a delloo ginnaaw lim fi def ba coono am ba ay xale dee ndaw ñi di jël jaral leen ñu dee ci géej gi dem bitim réew nit ñi di jooy ndóol njàng amul faju amul Sénégal toll fi mu toll si njàqare tey ñu taxaw bëgg ñoo une nouvelle forme de troisième mandat duñu ko nangu ñoo bañ ñoo bañ ñoo bañ et on interpelle la communauté internationale ñi ngeen ñuy dégg voici le bilan du président Macky Sall et c'est dommage et c'est regrettable parce qu'il a failli il a failli partir au moins avec la tête un peu haute mais là Malheureusement, il vient de montrer le vrai visage. Les masques sont en train de tomber. Il essaie de faire un hold-up électoral. Ça, c'est quoi? C'est un coup d'État constitutionnel et nous ne l'accepterons pas. Nous sommes des citoyens sénégalais avant tout, avant d'être des politiciens ou des candidats. Nous sommes la jeunesse, nous sommes les femmes, nous sommes les dignes fils de ce pays et nous avons le devoir de répondre à l'appel de notre peuple. lii moo wane ne dégluwuñu le président Macky Sall et son régime n'a jamais été à l'écoute dégluwuñu ndaw ñi depuis ñetti at ñenki ñeenti at ñii yuuxu nañu ñii jooy nañu ñii dee nañu lu ne xew na muy woote ay dialogue ak i waxtaan ak i conseil ban solution benn solution xool leen li xew tey mu ne ñan la waxtaanal mu ne ñan la waxtaanal waxtaan na avec les présidents des institutions waxtaan na ak conseil constitutionnel et cetera et cetera mais dafay fàtte waxtaan bi ëpp solo mooy waxtaan bi avec le peuple sénégalais waxtaanul avec le peuple sénégalais dégluwul xamul lu xew ci réew mi lii munta ne fukki at ñaar dañ koo muñ dañoo toog di ko muñal ba waxtoom jeex 2012 bi mu koy wax vidéo yaa ngi fi ñun nag ay ndaw lañu dañ lay vaar yaa ko fi waxoon maa ko fekkee maa la dégg ñoo la dégg yaa ne doo may Ablaye Wade une minute de plus mayuñu la seconde mayuñu la seconde Sénégal ay poñu nit moomuñu ko ku xamul li xew ci monde bi dangay ngay jaaxle du ci senegal kese Afrique ndaw ñi nit nitu Sénégal nitu Afrique seen xel yi dañoo ubbeeku li ñu mënoon nangu ci ay at ci ginnaaw mënatuñ koo nangu te daf ñoo jaral lépp ndax bëgg gi ñu bëgg suñu réew gëm gi ñu bëgg gëm suñu bopp ak xam gi ñu xam suñu bopp ak suñu moomeel te ñu nangu nga koy fokkati ci suñuy loxo ni nga ko xeexee 2011 ñu jàppale la si nga xeex ko ba jàll noonu lañ koy xeexeek yow ba mu mat sëkk ba nga jug abal ñu ñu assurer la relève et c'est la génération qui le demande je vous remercie c'est demain j'appelle